maaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ah, sëriñ xuma sëriñ fàllu xuma ak sëriñ seeni jeng représentant ambulant yi ah, ñoo ngi sëriñ mbay saar nga xam ne moom moo fi teewal mag ñi tey ñoo ngi ñëw fii ñun ñoo ngi tudd di njaay di directeur de cabinet bu yag ak maître Madické tay nak mu yebal ñu fi ci li nga xam ñun ñëpp xam nañ ko ñun ñëpp ñu ngi koy gis euh nga xam suñu borom moko fi dogal euh, mu japp ne mom ci bopam bi mbir mi xew da ko fekkul ci réew mi ba mu mën a ñëw teewal bopam li mu njëkk def moy génnewoon wona déclaration masaw leen ci wax leen mbir mi fi nga xam mom la ko toll ak massawu leen ci waaye loolu doyul ko ci woon dafa jàppoon moom ci boppam jëmmam mu ñëw teew ko fi ci seen kanam gën a saafuwanteeg leen massawu leen euh, waaye yàlla dogalul mu mën koo teel a def te day jàpp ne bu ko xaaree ba ba muy dellu si ci réew mi mën naa am mu yéex moo tax tey mu ne ñun nañ def délégation boo xam ne euh, daanaka ñi ñi nga xam ne ñooy ponk ñi ñi muy àndal te sëñ Tuubaa tax ci li muy def

ak ak ak ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoo ñoo gën a féete ndaw donc ñoo ñëpp dafa bëggoon euh, ñëpp ñu teewal ko fi pour won mbir mi rek fi mu ko tollu ndax euh, xam na ne dogal la waaye dogal bu métti ci jaam la waaye xam na nag yi tamit ne yéen ñi mu dal da ngeen di ñoo xam ne sëñ Touba moo tax ngeen ñëw ci dëkk bi jël seen alal di ko fi def ngir dundal dëkk bi ndax économie dafa mënul ñàkk ci dëkk économie boobu nag buy dund yéen ñii yéenay tax économie boobu di dund kon da ngeen jël mënoon dem ci beneen dëkk investir fa peut-être mu mu gën waaye xam ngeen ne Sëñ Tuubaa moom ku nekk ko nekkal mu nekkal kon loolu moom jàpp na ne doomu aadama moom fu mën mënti toll mën na jàpp ne euh, mën naa am natt te loolu li ci sunu borom di jublu ndax ñun ay taalibe lañ da ci job rek indi ñu ay xéewal yu gën a yu gën koy loolu moo tax jàpp na ne lii leen dal metti na waaye nag loo xam ne lii rek la natt la bu sunu borom teg ci yéen te da ngeen ko muñ bu ko defee sunu borom indi leen xéwal yu gën a gën a koo yooyu moo tax mu ne nag wax dëgg yàlla bu ñëwee nag dana ci barkeelu bu ñëwee tamit ñëw na coono boobu mu jéem ci def li nga xam ne moom la moom la ko yàlla dogal mu teew ci loxoom mu jox ñu ñaari million ne nañ ko jox ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñu dimbale kooku en attendant ñuy mën a taxawalaat loolu te di ñaan suñu borom nag weccee ko ay xéwal yu yaatu ba ñu teel a fàtte li nga xam ne moom moo leen dal nee na loolu nag daf ko war ci ñetti anam daf ko war ci taalibe la te taalibe bu ne ak bokk taalibeem war na bu nekkee ci dara loo xam ne lii neex la mu fekk ko ca bu fekkee leneen la nattu la it mu fekk ko ca da koy def ndax ci réew mi da cee bokk te yàlla dimbalee ko fi ci ay cër te loolu foog mu sant ci sunu borom bari fu doomu sénégalais nekke ci coonom war a taxaw jo ko njukkal ci xéewal boobu ko suñu borom defal defal ko baat waaye li gën a tax nag sax mu di ko yogg a def mooy sëñ bi da ko jox ndigalu na nekkal askan wi ku ne xam ne ne bi nga xamee ne nii demoon na ba ne day bëgg a def parti sëñ bi da ko ne déedéet yow loolu du sa mbir sa cër mooy nga nekkal askan wi yëpp kon lii nag ci nekkal askan woowu ci la bopp ndax di fa la fa la dooleem toll waaye bu ko sañoon tey moom lépp lu fi nit ñi def moom moo koy def moom kese ndax yéen gi mu am ci nekkal askan woowu moo xam ne moom la ko sëñ bi digal loolu nag moo taxoon tey ñu ñëw fi di leen masawu ci turam di ñaan suñu borom mi nga xam ne lu am moo ko dogal te lu mu dogal bu la neexee rek boo ko defee muy lu la neex moom dana ko wecci soppil la ko euh, lu mu métti métti mu soppil ko banneex ñuy ñaan suñu borom ci barke Cheikh Ahmadou Bamba bi ñu yaakaar ñun ñëpp mu soppil leen ko banneex bu gaaw xéewal yu yaatu lépp nag ànd ak jàmm ak salaam boo xam ne day tas si réew mi yëpp euh, ba nga xam ne ñëpp rek suñu borom danañ xam ne xéewal gi ñoo ngi ciy sant euh, nag ñu pa ñu ñu ñu ci li nga xam ne moom yorel na ko njukkal ak mu koy santal Sëñ Muntaxa ndax xam na ne naam naka jekk fu mu mës nekk dañ koy cëral ci yoonu murit jox ko gëdd waaye nag bi bi ko ni ko Sëñ Muntaxa defal moom loolu daf di loo xam ne li ñuy wax spécial ndax fii la taxaw adduna bi yëpp teew mu seeral ko loo xam ne daanaka kuñ ko seeraloon sax da ngay mujj dàpp ne man ak Cheikh laa léegi te te loolu xam na ne. cofeel gu mu am ci moom rek la mënu koo fay di ko ñaanal mu yàgg fi lool yàgg gu ànd ak wër lépp loo xam ne lii naanal la ko sëñ Tuubaa euh, ñu mu ànd koog moom def ca la nga xam ne moom moom moom la ma rek lu mënul di di continuer rek di di làq gërëmam waaye di sant yi tamit nag yaakaaram muy sëñ ma sàmba ndax lépp rek ci moom la déparé amul lenn lu muy def loo xam ne lii euh, dana ko dana ko def te jiitalu ko ci kon mu ngi sant sëriñam moom mi nga xam ne moo ko ubbil bunt yooyu ba mu dugg ci sëñ Tuubaa ba mën cee am lii mm. kon nag loolu mooy li nga xam ne moom la ñu yónni woon ma ngi leen di ñaanal suñu borom yokk seen taw bi jërëjëf waaleykum wa rahmatulahi taala wa sëriñ Modou moom ñëpp ñoo ngi leen delloo am ci ki nga xam ne moo leen yónni ma dikk ñang di taalibe sëriñ Tuubaa boo xam kenn ki nattal loolu lu ñu lu sëriñ bi seere la mm. kon moom daanaka ñun ak moom ñoo bokk ñoo bokk marché bi lu ko dal ak dal ñu kon dafa japp ni li ñu dal mom la dal ndax dafa jappé domam domi dekk bi te it mu yàgg ci lool diko fessel kon waaw tiis dalee ci wa marché ogas mu yëkëti ab délégation ñu and ko ñun ñu def lu rafetlu ko di leen nuyu ci te ci turu délégué marché bi nga xamanteni moy mooy Serigne Sini Dieng ak mboolem marché Ambalamaan yi nga xamanteni ni tam ñi fi dal na ci seen kaw hmm. ak borom place yi nga xamanteni moy sinistre yi ñoo tam ñoo xamni ne ñu lakkale hmm. ñun ñëpp ñoo ngi leen di marché di leen délu ab nuyo di leen yobënd ci président amadou kenyang di leen xamal ni waa marché Ocass de am nañ xol bu sedd guy bi xew-xew bi dalee ci kaw ñu yëg ko jàpp ko wane ne yëf ci kawam la dal ba tax mu yëkkati ab délégation ndax euh, déclaration ba mu ko jàppee noonu ba noppi mu yëkkati alalam ni dama koy jàppale ñi nga ñoo sinistré mu yëkkati 2 millions yi maa leen ko démbalee ndax loolu ndàmpaay la leen loo xam ne sax day seralu xol ndax mënut a tax sax li li li ñu fi ñàkk mu dellu siwaat waaye soo ko ne eh, maanaam dempal yi ngir nga ngir nga jëfandikoo ko ba keroog sa xel di desi xelam dana sedd yaakaaram dina gën dolli ko baax baax di leen sant ci turu Serigne Mountakha mi nga xam ne mooy kilifa ak jotaay bi ñu ko ñaanal suñu borom ko fi ba lim yene ligay Serigne Touba mu defé kon nam ko bëggé mm. wax dëgg yalla daal ñun ñi nga xamante ñoo ne ci marché bi fi yëngatu mm. té ëmb mboolem ci ñi jaay ka jënd mm. suñu xol sedd na sunu yaakaar gën doole ko baax baax ñong koy ñaanal ci barké Serigne Touba jëf ji mi jëfas ngir Serigne Touba suñu borom sam ko ar ko ba lim yene ligay réew mu defé ko nañ ko bëggé ñun suñu xol sedd na sunu yaakaar doole ko baax baax wax yalla li rafet na ndax nit ku ne amul lu mbokum julitam sa su amee naqar mu and ci ak mom su amé banex mu and ci ak mom loolu lu ñu diina di digal mom lañu islam digal mom lañu Serigne Touba digal kon wone na ni mom lepp lu dal wa Touba dal nako ndax jëf ji rafet na eh, ànd bi rafet na yàlla na ko suñu borom yàggal wax di yàlla ñun waa marché Ocass yëpp daal ñoo koy sant di ko gërëm di ko ñaanal ci yéenam ji am ci Serigne Touba mu defe ko nañu bëgg di leen sant di la gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu